votre horoscope du jour. À présent, votre horoscope du jour. Horoscope du jour. Seydina nga al antenne B.

buum dag rek day fekk moromam donc du coup ci biir loolu ku bëgg dund chacun pour soi day indi ay désaccords indi ay complications ak ay lëj-lëj yo xam dañ ci taxaw donc ñi nga xam ñom ñoy bëlé bélier nañ def attention bu baax ci walu seen vie sentimentale parce que loolu day indi ay lënc-lënc ñi nga ci walu santé ñom dañu nekk ni ñi nga xam ne war nañ def ay prévention ci anti fatigue xam nga sax xam nga fatigue bëri na ay forme

ñoom ñooy tóoro yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne ndeysaan xam nga nostalgique àll ñun bi ñu nekkee xale léegi-léegi nga amoon benn xale boo noboon nob bu yàgg boo xam ne doon photom day jenc léegi nag kenn rek la waaye defal naa ko rek àll xaaral rek léegi tóoro yi tóoro yi ñoom tey euh, dañuy di fuuyee seen i bagage ba gis benn photo boo xam ne gisoon xam ku yàgg la fiir rek fiir rek waaw léegi nag loolu dafa nekk li nga xam ne euh, dafa leen di indil ay ay ay gàllankoor ak ay affaire yu bëri parce que day dem ba yóbbu seen xel ci yu bëree bëri bëri kon tey jii waaw nañ def attention tóoroo yi lépp lu jëm ci wàllu photo seen ex nañ ko a ah, la ex yi la waaw mais ah, ex nag ak jabar <laughs> non est-ce que comprendre maanaam tey jii dama yaakaaroon sax que ne damay damay yurundu ba gis sax yow yow léegi di fuyee ci say bagage yi. remember ñoo dencoon yàgg remember ba gis photo man dama remember wul. waaw loolu d'accord man remember tamit dal vraiment remember wuma ok ma nekkee neex na ma lool. ok voilà yalla na ci yalla saxal kon. donc mu ne ci wàllu walu santé euh, da fay nekk li nga xamné ñom seen ñëmbop ils ont l'impression d'être en forme manam dañuy japp né ñi nga en forme mais en réalité ñu en forme donc nañu jëma dem hôpital comme li may doon wax sànq voilà donc nañ dem hôpital ñu ñu xolaat seen bop euh, ñi nga xamné ñom ñoy ñooy yi mu ne ñom dañuy nekk ni ñi nga xamné duñu admettre surtout que sen partenaire dominer mais loolu ñu tout le temps goor dominer parce que ci sen donc si ñu indi ben problème wala problème, benk wala kalang-kalang di soi-disant ay ñoo tolloog ay ñoo maase day indi ay galankor donc loolu néna source de conflit la manam day indi ay yow sa patron

dafa bëri dafa bëri donc loolu li koy mën a causer mën na bëri seen planning yi wala yenn affaire yu bëri activité voilà lekk toog rek waaw lekk toog donc loolu lañ jël waaw léegi mayte nag mi ngi doon wax ne jigéen ñi ci français sànq ne nañ def abdominaux ah abdominaux buy dindi graisse nag man voilà doy na waar eh, non non waxin la rek nag yow non damay wax rek suñ xoolal wuy ma jigéen ñi nag

ñoom dafay nekk li nga xam ne mun nañ am certes cadeau yoo xam ne dafay ñëw ñoom mais dañuy nekk yoo xam ne sorianto ah kon moom cadeau bi la sentir sànq moo tax ba léegi mu ngi expliquer ci suuf daf ko léegi euh, sorianto bi nga xam ne dafay am seen diggante ñoom ak ki ñuy bëgganteel hmm. mais sorianto boo xam ne dafa mel ni dañoo jege ndeysaan hmm. waaw donc affaire dafa gën a yokk loolu fort na dafa dafa euh, nga xam ne ngi ñu ngi tudd Safiatou Ndiaye Safiatou Safiatou Ndiaye ñu ngi lay ziar bu baax a baax voilà mu ne ci wàllu santé nañ dem lentement mais sûrement hmm. ci lépp lu mun di nekk la nañ ci def nànk-nànk wàllu

yow doo continuer li ngay wax yow. oui damay laaj te kan moo leen wax ne dañuy ah, rafet. man de sama grande sœur vierge la nag mais macha allah rafet ah. ok donc ñoom nag ci charme boobu ñu am noonu nee nañ si lañ muy sukkandiku pour mu a am li ñu bëgg maanaam dañuy dañuy monnayer seen charme. Mhm. donc loolu dafa nekk li nga xam ne ah baax na de baax na de bu dee jàll na. mais bu jàll moom day compliqué. mu ne yéen seen charme rek kàddu googu dafa rafetul. vraiment mu ne mu ne. charme waaw dafa garaaw waaw waaw tegg nu waay. mu ne mel ni jënd ak jaay. waaw maanaam kon kon kon kon kon ah. kon nu nga la wax nga ne. maanaam attitude la rek dañu yor attitude rek kon boobu ñoom ñi ngi charmé yàlla nañ ci am ndam donc ci biir loolu mu ne ci wàllu santé bi euh, ñoom dañ nekk ñoo xam ne journée bi tey vraiment dafa dañu war a foofu ci changement d'

tey donc ñom il faut ñu jéem xol euh, euh tàtte le terrain tey daal moom dinañ nek ci terrain dañuy tàtte terrain non non non tàtte tay tey dañ ci nek mom tay mom dañ ci voilà donc déjà lolu dafa nek lo xam ne dañ si bàyyi xel bu baax euh, ñi nga xam ci walu santé bi mu ne ñoom dañu nek vraiment au top donc côté santé bi euh amuñu ci ben problème bo xam taxaw na euh, ci ci walu travail dañu nek dans les nuages lepp li nga xam ñu ko bëggoon vraiment dafay nekk loo xam ne luy baax la do jiti nga xam ne scorpion ñu ne ñom ndeysaan dafa am ay souvenir ci walu mbirum bëggel yu bëri yoo xam ne dafa leen xol bi nostalgique première année. ndeysaan di xalaat daa bëri yow si ñëpp nga yow pardon garaawul loolu yëpp nekk li nga xam ne mu nañ am la tête sur les épaules parce que des fois da ngay da ngay xalaat xalaat ay xalaat yu neex yoo xam ne doo doo comprendre yaa ngi ci air bi yaa ngi ci air donc loolu mu ne nekk dañ xel baax mu ci wàllu sax day dem ba di di stress dal ci kon beaucoup attention ci ci ci santé également euh, euh, travail professionnel dañuy nekk ñoo franchement al Euh, lépp li nga xam ne ñu ngi ko bëgg bu buñ ci waxtaanee ak seeni i kilifa dafay nekk li nga xam ne luy sotti lay doon sagittaire yi nag ñoom dañu xam ne ah il faut ñu adopter vraiment benn attitude responsable xam nga nit nag day màgg tey jii même boo amoon boo nekkee xale jeune fille am ay vingt trois vingt quatre vingt xam nga doon jaay ay mais boo demee ba benn âge la da ngay commencé am maturité. Mm-hmm. di xam ne àdduna ne léegi nag sagittaire yi nañ commencé di xalaat ci loolu bu ko defee rek dina nekk loo xam ne luy baax la doon mais nag ci wàllu santé ñoom seen ñëw dafay am une légère baisse de tonus temps dañoo. xam nga boo amee 23 ans a kii da ngay foog ne yaa àdduna buy waaj da koy téye ndeke day capté wuñ dara donc bés de tennis le fi mu ne nii nga góolu train non ñu ngi bëgg moo tax it surux nañ fi mu ne nii donc nañ def attention bu baax ba ci walu liggéey aussi dañ nek ñi nga xam dañuy am chance incroyable duñ ko yaakaar dañuy dem fenn rek lolu nek li nga xam luy soti lay doon capricorne ni nak moy ci ñetti signe yu mujj yi daanaka euh, dañu nek ñi nga xam confiance lañ amat ci seen vie sentimentale parce que dañ demone ba commencer décourager parce que tout le temps dañu am ay déception ay yaakaar yu tass ay nit ñu leen di war ay li ñu leen di wax dara ci am ay ñu dig leen tak du am ak yu demee non donc yoy dafa nek li nga xam ne fi ne nii jeex na ñoo dugg ci période boo xam ne vraiment lu baax lay doon donc ci wàllu santé sax dafay gis ne xalaat boobu ñuy xalaat day dem ba ci seen santé dañuy am yaram dañuy dañuy dañuy dañuy nekk ci wër quoi donc loolu nekk loo xam ne lu baax lay doon ci ñoom ci wàllu euh, professionnel dañuy nekk ñi nga xam ne bu ñu relâché bu ñu bàyyi dara àll nañ ci continuer rek day baax verso mooy signe bi nga xam naa ne que mooy mooy avant bi mujj avant poisson ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne ci mbiru xol affaire de cœur ñoom ay rencontre day bëri waaye dañuy am embarras de choix duñu xam fan la ñuy laal eh, loolu maraan la ah goor yi ñom kon lu ñuy def ah, ñoom ah tamit il ah, faut ah non mais goor yi ko catégoriser nii tamit wa parce que ah, nee na far di ta am fu non mais mais mais jaxlé rek wa jaxlé rek wa mais nak problème bi moy ca ñextal ba dañuy perte dis perte les mm. en voulant trop gagner loolu ci gàcce la bokk rek jaxlé la bokk voilà donc légui mëna ci biir loolu nak légui dañuy dem ba al perte bobu ñu perte daf leen ñuy surmenelo ci walu santé nee na ils ont tendance dañuy am lu melni genre surmenage donc ma ah ñoo ko def ah, bëgg a laal fi ne loolu kenn mënu ko mo ndaje ah, loolu mënu nekk moo tax déjà bu ñu xoolee aussi même ci walu professionnel stress bobu leen indi nee na nañ def mettre un peu de l'ordre encore sur le plan professionnel buñ ko defee rek dinañ am li nga xam dañ ko bëgg ñi jéxalé nag ci ñi nga xam né ñom ñoy poisson yi donc euh, ñom dañu nekk ni nga xam né euh scène vie sentimentale actuellement dafa commencer di battre de l'aile mi ngi commencé di cóol day commencé di am ay quelques complications yo xam ne dañ ci taxaw bien vrai que am nañ une relation solide mais ñom seen ñëw dañu compliquer xam nga complication bu bëri da lay indi lay gàllankoor donc loolu nañ si bàyyi xel baax moo tax sax ci wàllu santé ñoom seen njëbb également dañuy def plus d'effort pour mun a am dara donc euh, boo xoolee professionnel aussi ñoom dañu nekk ñi nga xam ne dañuy def ay quelques maladresses. mais nag xam nga nul n'est parfait et puis nit l'imperfection étant humaine nit du mot. donc loolu malheureusement moo indi maladresse yooyu donc il faut ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom ñu mun leen jàppale donc vraiment à ah, loolu moo nekkoon euh, horoscope bu tey bu. 17 euh, avril bi donc euh, di djeglu ci non non non euh, voilà voilà voilà donc di di au passage Modou Gueye keur mhm. génération Future Média. donc ñom vraiment dañ koy